الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala di ko dimbandikoo di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar musal ñu suñu sikk ak suñu mënu bopp di seet ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom borom bi subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci sangu-sang yi suñu yonante muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ñaan borom bi mu daldi ko jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog bés penc gannaaw loolu ñu leen di dénk di dénk suñu bopp ragal suñu borom subhanahu wa taala te mooy jëfe ay digleem te mooy te sori te bàyyi li nga xam ne mooy ay tereem mbokk yi dund gi ñuy dund boo ko settantalee ci tolof-tolof yi jafe-jafe yi ñagas-ñagas yi coono yi nattu yi métit yi ak daw wuti àdduna di daw ci ginnaawam topp bànneex yi léeg-léeg nit ki dem ba fàtte diineem ngëm yàlla am lottu lool léeg-léeg ñu dem a dem ba ay jikko yoo xam ni miinuñu ko woon ci doomu aadama ci jullit ci suñu réew ci suñu société mu fes loolu tasaaroo nekk ci kaw ñàkk li nga xam ne mooy euh, euh, ñàkk jub ñàkk li nga xam ne mooy nite ñàkk li nga xam ne mooy ak diine nit ñi di def daanaka boo leen di xool seeni comportement seeni doxalin mbirum bàyyi ma la lay jox lu yellutoon ci doomu aadama dem ba fes suñu société mbokk yi aduna noonu la luñ gën a jege saa luñ gën a jege bés penc dund gi gën a métti jafe-jafe yi gën a bëri dund gi gën a ñagas waaye ay kéemtaan di gën a feeñ yoo xam ne kenn yaakaarutoon ci jamono gën mës a génn mbokk yi muy feeñ ay jikko yoo xam ne charia daf ko ne moytuloo ñu ko ngir li muy yàq ci doomu aadama bi koy def li muy yàq ci li nga xam ne mooy société bi ngay dund li muy yàqal say moroom ñeneen ñi waaye li nga xamee ne dala koy sori sa boroom waaye dalay xañ li nga xam ne mooy nga doon nitu diine nit koo xam ne dafay dund diine même boo koy woote woo ci làmmiñ jikko yooyu bu feeñee ci yow rek mooy sa diine suufe na sa dafa woyof sa diine des na lu bëree bëri mbokk yi loolu li muy jur mooy bew tooñ euh, mero noonoo xol yu tàng ku nekk yéene sa morom lu métti foofu la ñuy mujjee jikko yooyu bu feeñee ci nit ki da koy suufee suufeel da koy wàccee daanaka ak niteem day jeex waaye ak diinam day jeex ci moom ba boo koy xool nit ku am yax yàpp ak deret rek ngay gis ci moom muy squelette buy dox nii nit waaye diine nekku fi ngor newu fi mbaax nekku fi jikko ju baax newu fi nite newu fi nit ki leneen la lay jox waaye du nit ba da ngay posé question kii ban façon nit la lu ko dal maanaam lu ko yóbbee nii lu tax mu mel nii lan la lan moo tax muy sori diine ak woo jikko yoo xam ne charia daf noo ci teeloon a fere ne bu leen ko bu leen ko mel baaxul yow mi koy jikkowoo da lay sonal da ngay sonal sa bopp balaa kenn sonn sonal ñi nga nekkal sonal li nga xam ne mooy société bi waaye sori sa borom subhanahu wa taala bokk na jikko yooyu mbokk yi mooy pexe mu bon muy almakru sayi nit koo xam ne bu yeewoo ci pexe lay yeew suy fanaan ci pexe lay fanaan suy gond ci pexe lay gont suy xëy ci pexe lay xëy soo ko séenee muy dem day fexe ji buy dikk day fexe ji buy toog day fexe ji buy jóg sax jóg bi pour fexe la yàlla nañ ci yàlla musal jikko bu ban la mbokk yi nit ku nit ku am jikko bu mel noonu fu mu nekk sonal leen bu fekkee dafa ne ci kër sonal waa kër gi bu nekkee ci quartier sonal waa quartier bi bu nekkee ci gox sonal waa gox bi bu nekkee ci am réew sonal réew mi bu newee ci daara sonal waa daara ji bu nekkee ci oto balaa nit ñee wàcc yàkkamtee wàcc fu mu nekk sonal nit ñi dafay sonal nit ñi ba nit ñi dañuy doyal ci moom sëkk lu tax mooy pexe subaa ngoon ba bëccëg lépp pexe al makru sayyi te du pexe bu baax parce que pexe ñaar la bu baaxal ak bu bon waaye moom ci pexe bu bon ci lay xëy xalaatul li nga xam ni moom mooy pexe bu baax mbokk yi pexe mooy iradatu char al makru sayyi mooy iradatu charri lil axarin mooy bëggal say mbokku jullit lu bon man naa nekk ci jàmm sama mbir na dox bu kenn bu mbiram dox naa baaxale bu kenn baaxle naa yiwle bu kenn yiwle naa avancé bu kenn avancé ku jéem a avancé naa ko fexeel ku jéem a am jàmm naa fexe mu denc jàmm ji nekk ci jafe-jafe bu mu tal jàmm loolu mooy doon li nga xam ne moom mooy doxalinam lekk léeg nag li koy waral mu nit ki day am kàttan gu ko yàlla jox mu jëfandikoo ko ci di fexeel ay nit lekk léeg muus gu ko yàlla jox muus mi au lieu que mu xalaat ko jëfandikoo ko ci lu jëmale boppam kanam lu jëmale xam-xamam kanam diineem kanam lu jëmale réewum kanam waaye muus gi da koy jëfandikoo ci fexeel ay nit mais intelligence bi jëfandikoo ko ci développement intelligence bi jëfandikoo wu ko ci euh, xam-xam yokk xam-xamam mais da koy jëfandikoo ci ay pexeel ay nit rek ci la koy jëfandikoo léeg-léeg alal gu ko yàlla jox alal gi au lieu que mu jaamu ci yàlla jàppale ci ay daara ay borom daara tabax ci ay jàkka jëndal ci ay ay ordonnance bënd ci ay teen nit ñi naan alal ji mu am boo ko xëyee suba ba ngoon jot lépp lu mu def ci alal ji fexeel ay nit amu ci programme bu baax fexeel ay nit ci lay dox yàlla jox ko daraja daraja bi mu am au lieu que mu jaamu ci yàlla santee ko yàlla mi ko ko jox gërëmee ko yàlla dimbali ci jaamu yàlla yi daraja ji da ci profito di xool ku muy pexeel di xool ku muy pexeel ku muy yàqal ku muy dellool ginnaaw lu ci loolu rek lay xëy mbokk yi alxuraan daf ñoo moytuloo jikko bu bon bii muy jikko xëy suba ngoon guddeeg bëccëg di fexeel rek ay nit fexeel nit nag lu yàgg ci histoire la lu yàgg la depuis lu baax nefi ci la ay nit di fexeel lu baax lu baax ci boppam ñu koy fexeel loolu mu ngi tàmbali woon diggante suñu maam aadama ak iblis iblis iñaan ak fexe ak pexe ba yàqal suñu maam aadama ci la nekk ba suñu maam aadama wàcc ci suuf taxul mu bàyyi ko ba ci njabootam mbokk yi suñu borom wax na yonent bi ne ko is yamkuru bika alladina kafaru fàttalikule Muhammad bi nga nekkee Màkka di waaj a gàddaay pour dem Médine yéeféeri yëg ko ñu lay fexeel is yamkuru bika alladina kafaru ñu lay fexeel fexe gi lan lañ doon fexeel ñetti mbir lu yusbituuka moo ñu jàpp la bett la jàpp la takk la takk la yeew la benn firin bi boobu la beneen firin bi ibnu kasir moo ne aw yes junu ko mooy ñu tëj la lu yes bi tuuk mën naa firi ñu jàpp la téye la wala ñu tëj la bu ñu jàppee dafa mel rek dañ laa tëj ku ñu takk laa tëj kon ñu takk la benn place ba doo bougé yow Muhammad wala ñu tëj la benn place ba doo bougé doo mën a gàddaay ba keroog ngi pare pour daal di lay rey loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi aw yaqtulu ko wala sax duñ la jàpp fekk la fi nga nekk ñu takk la wala ñu tëj la mais dañ la fay rey benn yoon te liñ programmé woon mooy giir yi nekk ci biir màkk yépp Quraysh ñëw bettandoo ku nekk dóorandoo benn jaasi bu yonent bi faatoo bu ñu xëyee waa banu Haashim suñ taxawee banu Haashim muy Abdul Muttalib ak njabootam ne ñun dañuy faylu yonent ci Yàlla Muhammad parce que yéen ko rey ñu ne ñun ñëpp ñoo ñoo ko dóorandoo du ñu mën a song kenn benn xeet lay nekk contre xeet gu bëri su ko defee ñu gañale loolu moo doonoon plan bi ñetteel bi aw yuxrijuuka ñu génnee la sa dëkk bii di Makka ñett yëpp lañ préparé. mais yonent bi yàlla génnee na ko laata ñoom ñu koy génnee kon seen pexe sottiwul mënuñu ko woon a rey yàlla naaxal na pexe bi takkuñu ko jàppuñu ko yàlla naax saayal na pexe bi kon bi desoon moo ñu génnee ko yàlla génnee ko avant ñu koy génnee yàlla jox ko ndigal mu génn avant ñu koy génnee borom bi mu ne wayam kuruun ñoom ñu ngi doon fexe wayam kurullaa mais yàllaa ngi fexe moo tax saa booy pexe di teg ay plan yàlla day fexe yow li ngay fexe pour yow mooy dox mais yàlla plan mooy dox plan yàlla mooy dox ci sa kaw ngay fexe yàlla di fexe yàlla ne wallaahu xayrul moo gën ci pexe yi yow dangay fexe sa pexe newul bi gën bu yàllaa gën buy ñëw di puus sa pexe di ko di ko puus di ko football muy dem doo ko yëg da ngay toog naan lu xew fekk fii këru yàlla la moo ko moom boo fi bëggee jiital sa pexe ci pexe yàlla yàlla woon la ne fii maa ko moom da ngaa fàtte sama kër la asamaan sama asamaan sa suuf di sama suuf la ndox yi sama ndox la gàncax yi sama gàncax la doomu aadama yi samay jaam lañ sama pexe fii dox yàlla day puus sa pexe teg ba sam da ngay yeewu bés naan li ma li ma planifié woon lépp li ma tegoon lépp fan la jaar doo xam fu mu jaar parce que fii pexe yàlla mooy mooy dox wallahu xayrul maakirin yàlla pexe mooy pexe bi gën ci pexe yi borom bi ne nit yonent yàlla saalix bi nga xamee ne saalix ak gëléem bi parce que ñoo waxoon saalix bu dee yàlla la yónni waxal montagne bi mu xar gëléem génn saalix ne mën naa ko waaye damay bañ ngeen sonn ñu ne ko yow ñu sonn ak ñu bañ a sonn so yoon nekku ci montagne mën naa génnee gëléem mënta génnee gëléem saalix ne mën naa ko waaye damay bañ gëléem gi ñëw nekk nattu ci yéen ñu ne ko yow dafa mel ni li ngay woote wooju dëgg montagne bi ne génnee gëléem werante bi bëri yonantu xam na miracle bi ko yàlla jox du ko gaaw a jëfandikoo moo tax ko am pouvoir doo ko gaaw a jëfandikoo Saalim négocier ba sës ñu commencé ko saboote Saalim ne ay ca ñaan yàlla montagne bi xar montagne bi xar gileem génn ak doomam xamatuñ lu ñuy def taxul ñu gëm Saalix ñu ne ko waaw ah, gileem gi génn ak doomam waaye charte bi mooy bu mu nekk ak ñun ci dëkk bi na gileem gi ne ci àll bi Saalix ne amul problème waaye nag gileem gi fii benn teen moo fi am yéen a gi yéen a koy bokk teen bi gileem gi day ñëw naan gileem dañuy gaaw a root li ñu am ci ay ndab yëpp root ba mu fees parce que giléem bu ñëwee day naan teen bi ci dem ba yàgg ñu ne ñun dañoo sonn mënatuñoo bokk ak giléem ci teen bi giléem nit di bokk ak giléem naan ndox mënatuñ ko giléem gi day wuti fu mu naan wala mu bàyyi suñu teen saalih ne yéen a ko laajoon dikk na te day naan ci teen bi lan lañu def ñu complot ñoom daal di rey giléem bi complot juróom ñeenti nit ñoo ko jiite ci dëkk bi wa kaana fi l madinati tisatu raxtin yufsiduuna fi l ardi wala yuslixuun juróom-ñeenti bopp ñoo nekkoon ci dëkk bi di complot di def ay pexe lu xew ci dëkk bi ñoom la ñoom ñooy pexelu waa dëkk bi ñoo wër waa dëkk bi juróom-ñeenti ñooñu porte à porte wër kër yi ne leen jëléem gi nañ ko faat nga ne leen suñ ko faatee mbaa saalix du ñaan boromam mu bëggal ñu ñu ne saalix ay mbir rek la def débat def ba génnee jëléem gi mais jëléem gi sonal nañu solution bi mooy mu faatu ñun ñu jël suñuy teen di naan tranquille di root tranquille fitnay root gi dootu ñu ci nekk dem ba convaincre juróom-ñeenti nit ñoo convaincre société bi convaincre waa dëkk ba bañ leen convaincre ñu daal di rey gëléem ga fa aqaru naaqata ñu rey gëléem ga bañ ko reyee <clears throat> saalix na leen nag yàlla dina wàccee mbugal ci yéen yemuñu fa même bi ñu reyee gëléem bi ñu ne saalix ci boppam nañ ko faataale saalix ci boppam nañ ko rey borom bi di nettali mu ne wa kaana fi l madina tisatu juróom-ñeenti nit ñoo nekkoon ci dëkk bi yufsiduna fi l ard wala yuslihuun yàq rek la ñuy def mooy di pexe-pexe yi bon du ñu wax wax ju baax lan la ñu wax qaalu taqaasamu billah ñu ne nañu nañu booloo nañ ànd ñun waa dëkk bi yëpp nañ ànd suñu àndee lu ñuy def lanu bayit lanu bayitan na ñu fanaan bett ko rey ko ci guddi gi naqtuluhu laylan wa ahlahu ak ay nitam yi nga xam ne ñoo ko jàppale bëriwuñ ñoo leen ëpp léegi suñu yeewoo summa naqulanna li walihi ñu wax ñi nga xam ne ñooy kilifaam yi ma shahidna mahlika ahlihi ñun xamuñu lu rey saalix suñ yoon newul ci deeyam saalix daa xëy de amaana ay doxandee ma fi jaar wala ay nit waaw gis nga pexe mu bon bi ñuy teg wa naa la saadiquun tey li ñuy wax nii dañ cee dëggu de suñ loxo laalul ci saalix taqewuñ ci xamuñu lu ko faat ñii lañ yeewoo gis ko ak yéen ba moytuwul sax ñu jooy la leen wala ñu jàppale leen ci dëj waaye suñu yoon nekkul ci rey gi loolu la ñu wax inna la saadiquun yàlla ne déglul wa makaru makaran xoolal pexe gi ñu pexe borom bi ne wa makar naa makaran ñun ñu pexe suñu pexe wa hum laa yashurun te ñoom yëguñu lan lañ bëggoon mooy rey saalix wala ma tafsir ne fi saalix tëddoon saalix dafa xawoon a isolé wu ak tuuti ak waa dëkk bi ñoom ñu yoot ci guddi gi juróom-ñeent ñi leen ñu ànd ak mbooloo dem di faati saalix fekk fi mu tëdd pour rey suñu borom dafa jékki-jékki benn picc bu nekkoon ci benn montagne picc bi naaw te montagne bu rëy la picc bi mënu ko sax yëngal mais suñu borom def picc bi bi mu jógee montagne bi naaw rek montagne bi barastiku montagne bi fekk leen fa dër leen dër leen ba pare bañ a jàll mais tege seen kaw pour waa dëkk bi yeewu xam li leen rey montagne bi daf leen dër ba pare taxaw sans mu avancer seen kaw la taxaw waa dëkk bi yeewu gis ñi tëdd montagne bi nekk seen kaw ñu xam ñii lan lañ doon fexe yàlla mu ne gis nga ñoom li ñu doon fexe waaye yàlla fexe na am pexe seen kaw ba seen pexe doxul moo tax saa booy fexe yàlla ngi fexe sa kaw borom bi ne wa makarna makaran wa hum la yash'urun ñu fexe suñu fexe te ñoom yëguñu lan moo xew mu ne fanzur kayfa kaana aqibata makrihim xoolal lan moo nekkoon kayfa kaana aqibatu makrihim la nekkoon seen mujjantalu pexe ge anna dammarnaahum wa qawmahum ajmain dammarnaahum faat nañ leen wa qawmahum muy juróom-ñeent ña wa qawmahum ak nit ñañ àndal ajmain ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn borom bi daal di joxe misaal ci loolu mbokk yi pexe yu bon foo ko fekk nit ku diineem oyof ku ku diineem woyof ku suufe mooy def jikko ju suufe jooju parce que il faut nga suufe pour mën a def lu suufe beneen bi mooy ku denc ak mbon ci biiram ku don denc ak mbon denc ak coxor denc ak iñaan foo ko fekk mooy fexe waaye borom jikko ju yées foo ko fekk mooy pexe mbokk yi nag pexe yu bëri ci nit nit ki soo xam ne suba ngoon ci pexe lay xëy di pexe day dem ba day gëlëm yàlla dafay gëlëmal xol bi day gëlëmal bët yi jëf ju baax ju muy defati jëf ju jëf ju muy defati pour moom baax na pour moom baax na parce que yàlla koy gëlëmal waaye jëf ju bon la ba moom day jàpp ne jëf ju baax la mais fekk jëf ju bon la ba naan jëf ji dafa bon moom na xel ni pourtant moom day jàpp ne man maa ngi def lu baax de def naa effort li may def nii lu baax la pexe de lu baax laay def mais fekk yàgg pexe gi ba mu chronique ci mënatul def lu baax pexe gi da koy téye contrôlé ko ba chronique ci moom ba effacé lépp lu baax ci moom ba même suy jéem a def lu baax lu bon la ba moom pour moom lu baax la ba nit ñi suñuy interprété li muy def lu tax baaxul moom da koy jaaxal pourquoi nit ñi di bonal li ma def nii ci man lu baax la fekk na yàlla gëlëmal na ko mënatul def lu baax foofu la yóbbee nit ki moo tax lu ma a bàyyi xel moo tax borom bi joxe misaal ci yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko waa màkka di fi xel bi ko waa Màkka di fexeel ca suratu Ibrahim borom bi mu ne wa fi masakini alladina zalamu anfusahum a fii ngeen dëkki nii nit leen jiitu ñoo fi dëkkoon muy nit yonent yàlla saalix ya ak nit yonent dëkk nekk ci néeg di fi dox ma jële leen fi yéen ngeen ñëw dëkkaat seen place du ngeen bàyyi ci xel loolu te ñoom dañoo tooñoon ma jële leen fi wa sakantum fi masakini alladina zalamu anfusahum wa tabayyana lahum kayfa faalna bihim xam ngeen naka laa leen defoon ñoom damaa wàccee mbugal seen kaw dóor leen mbugal wa darab naa lakumul amsaal ma jox leen exemple jox leen misaal ci ñoom waxat makaru makarahum ay pexe rek lañ fi nekkoon di pexe wa inda allahi seen pexe ya ñëw ci yàlla borom mu doon pexe ñaari firi la ko borom xam-xam yi firi parce que aaya dafa am ñaari jàngin pexe yi ñu doon pexe ma leen ci bàyyi woon mën na fee jëlee montagne yi loolu mooy ñi ko firee at taazim wa tahwil mooy pexe yu màgg yu rëy la am ñu ko firee istixfaaf mooy pexe yi ngeen di pexe lu mu rëy rëy rëy par rapport ak sama pexe mënta buuseel sax montagne bu sama pexe ñëwee mënta yëkkati sax montagne kooku mooy istixfaaf kon yàlla nettali ñu ñooña lañ doon def ci ay pexe borom bi mu ne falaa taxsabanna allaha muxlifa waadihi rasula yow muhammad bul mës a jàpp ak seen pexe lu muy rëy rëy yàlla du respecté li mu wax yonentam ne dina la protéger dina la aar yàlla dina yàlla dina jeexal seen pexe yàlla dina yëkkati sa diine dina ko feeñal dina ko tasaare yàlla ku màgg la Aziz zuntiqaam ku mën a fayu la te buy fayu dafay métti mbokk yi alxuraan dafa fees dell ak ay aaya yu ñuy nettali ak li nga xam ne mooy taxawaayu ñu nekkoon ci kaw suuf di pexe ñii ci seen xam-xam ñi ci seen nguur ñi ci seen doole ñi ci seen daraja ñi ci seen muus ak xel mu neex alxuraan dafa ñoo nettali kenn ku nekk fa mujj loolu bari na lool borom xam-xam bind ci ay téere mënoo ko wax ci benn taxawaay dinañ ci jukki lu néew a néew loo xam ne nuru naag lu fi jaar loo xam ne waxoon nañ ko mu nekk contexte boo xam ne benn la waaye appréciation yi rek moom mooy wute bokk na ci mbokk yi mooy euh, yàlla nettali nañu ci nettali yooyu yu bëri nga xam ne soo ko jàngatee lim lay jox mooy ndekee pexe ay façon la pexe teg pexe lal ay plan ak tegi pexe ay façon la am na ci boo xam ni day nekk nit ki dafay teg ay pexe pour xeex dëgg xeex diine xeex nit ñu baax ni xeex wootekat yi pexe yi muy teg nag mooy def leen di diaboliser tiital leen nit ñi takkal leen ay étiquette wut baat boo xam ne su ko waxee nit ñi ragal ñooñu wala duñ leen bëgg a déglu wala duñ ñemee dem ci seeni jataayu xam-xam wala sax dañuy làqatu pour seetaan leen wala pour déglu leen groupe boo dugal seen waxtaan ñu ne jëlee ko fi parce que ñoom nangam lañ diabolisation boobu pexe boobu ñenn ñi moom la ñuy teg mooy asaddu anil xaq wa muxaarabatil maaruf mooy xeex dëgg ak xeex lu baax am na ñoo xam ne seen pexe yépp mooy xeex dëgg ak lu baax suñu xëyee suba ba ngoon mooy naka la ñuy def ba xeex dëgg naka la ñuy def ba di fexeel lu baax ba du ba du tasaaru société bi ci loolu rek la ñuy dox képp ku baax ñu fexeel la kuy wax lu baax ñu fexeel la kuy wax dëgg ñu fexeel la kuy tasaare dëgg ñu fexeel la ci loolu rek la ñuy dox amuñu beneen programme boo leen seen ñuy dem ak dikk ci loolu lañu nekk am beneen pexe boo xam ni dafay nekk diggante ay nit lu koy waral muy xëccoo alal lu koy waral muy xëccoo mbooloo wala xëccoo daraja wala xëccoo place wala xëccoo poste ku nekk di fexeel sa morom boobu façon pexe am na am na fexe goo xam ne diggante diggante ay nit la ay nit ñoo xam ne ay xarit lañ wala ay àndandoo wala ñu bokk di wut dara wala ñu bokk nekk fenn ku nekk di fexeel sa morom loolu ci pexe yi la bokk na ci pexe yi nga xam ne pexe yi siiw la mooy di def ay pexe diggante ay dëkk réew moo xam day def pexe pour nangu ab dëkk réew moo xam day def pexe pour nangu économie ab dëkk nangu suufam nangu géejam nangu ay richesse am di xool ay pexe yi muy def ba di koy nangu loolu mi ngi am mbokk yi bokk na ci pexe yooyu mooy def ay pexe politique yu dox diggante ay parti politique diggante ay organisation diggante ay mbooloo di def ay pexe pour suul sa moroom éliminer sa moroom euh, yokk sa doole wane sa bopp yooyu pexe yëpp dafay am ñu ngi am ci diggante li nga xam ne mooy nit ñi ak pexe boo xam ne da ngay pexe pour noot ay nit ak pexe boo xam ne da ngay pexe pour fexe ba li nga xam ne mooy wàllu doxalin ak wàllu àtte nga féete woo ko ñeneen ñi duñ ci am li nga xam ne moom mooy wàll ak pexe boo xam ne da ngay jalgati àqu ay doomu aadama àqu ay nit àqu ay nit ak façon nit yi mënti doon ci biir société bi nga jalgati li nga xam ne mooy seen i àq ak seen i moomeel ak seen i wareef loolu ñu ngi koy gis nit ñaa ngi pexe pour nangu ay terrain yu kii di fexe jël oto jàmbur jot ci këyit di jaay ko kii di fexe sax pour nangu jabaru jàmbur kii di fexe pour nangu ay këyitu jàmbur ah ainsi de suite pexe suñu borom nettali ñu pexe ak borom fan lay mucc pexe ak borom fan lay mucc Firawna dundam yëpp da koo fexe dundam yëpp ay pexe la xeex lu baax xeex dëgg la fi nekkoon moom Firawna yàlla def muy fexe ci pexe yooyu bëggul ko ko remplacer ci nguuram mu rey doom bu góor bu juddu jigéen ñi pour wàññi seen jur gi mu xool ci ña nga xam ne ñoo ko neexul mu toroxal leen. ngir lan ragal chaise am ragal fauteuil am ragal nguuram ba kenn du ko doon suñu borom di ko seetaan rek wane ko nguur maa koy joxe maa koy jeexal na lépp loo xalaat ci ñaaw ñaawteef ci mbonte ci méchanceté ah ak ci violence def na ko société mooy exemple ci loolu kenn melul ni Firawna ñu dem ba yàgg mu romb loolu woote woo ak yàlla ne man lañu war a jaamu muy uluhiya ñu ne déet mu woote ak rububiya maa moom nit ñi maa leen moom maa leen moom yéen maay seen yàlla man ngeen war a jaam mais sax maa leen moom ñaar it mu woote ko suñ borom di ko seetaan yàlla dafa mën seetaan yàkkamtiwul doomu aadama mooy yàkkamti yàlla du nit yàlla la nit mooy yàkkamti mais yàlla yàkkamtiwul lu tax mooy bu la téye doo ko rëcc yàlla bu la téye doo ko rëcc te di nga rëcc lu tax mu téye la suñ borom toog di ko seetaan rek firawna temps bi mu jël yépp di pexe ak di yàq yàlla di ko seetaan lu tax mooy yàlla du ko mënta rëcc yàlla sàcc bu dul raw li ko la wolof waxee jarut a ne nelaw euh, suñu borom li na fexe yëpp euh, yónni arméem ci kaw suuf ñu tiital nit ñi ak di leen menacer bu ni ma ko waxee woon fii xale yu ndaw yi xale yu ndaw yi dañ leen daan naxee boo nekkee ci kër gi di bajantu ñu ne la ñu ngi woo na xale bi toog yaru nga kooku raglu la foofu la tolloon yàlla wammatal ko muusaa mu nekk liir ñu sànni ko ci pañe ci ndox mi yàlla wammatal ko muusaa mu ñëw këram te moo doon rey xale yu góor yi xale bu góor ñëw ko am liir Firawna téye ko te moo doon fexe. pexe yàlla féete kaw pexeem pexeem moo doon rey ay liir yàlla indil ko liir këram xoolal ñaari pexe yi di fexe di rey ay liir yàlla indi la liir sa kër loo doon daw di rey liir yi mooy bu ma benn liir màgg ba remplacer yàlla indi la liir sa biir pale moo la war a remplacer pexe yàlla ñëw na féete na sa kaw pexe nga fàtte na jël Moussa yar ko armée bi mu yor ci biir palais bi garde yi ñooy garde Moussa buy génn ci mbedd yi dox ñoo koy garde biir kër gi ñoo koy garde serviteurs yi ñooy servir Moussa comme ni ñu serviré Firawna lekk ak naan lalu Moussa dañ koy lal comme ni ñu lalee lalu Firawna xoolal pexe Moussa xoolal pexe Firawna ak pexe yàlla fan la mujj na mi Moussa yar jox ko mu lekk jox ko mu naan ba màgg yàlla def ko mu nekk yonant woote woo génn na dëkk bi ñëwaat di woote woo na tiit ci moom diaboliser ko xelam di door a ñëw ni xale bi ma war a remplacer dëkk kii la lu xew lan moo xew affaire yi fan la jaar doo xam fu mu jaar yàlla bu koy jaaral rëcc def na lu nekk yàlla indil ko ci biir këram ku ko war a doon te def na lu nekk bu ko xale bu góor doon yàlla indil ko ki ko war a doon mu génnee ci biir këram nekk waxambaane taxaw ne ko yàlla mu yónni sa nguur gi day jeex li ngay woote way caaxaan nga doo yàlla moomoo jaam yi buur nga te nit ñi nag am nañ borom boo xam ne yónni ma ci ñoom pour ñu jaamu ma Firawna bëgg a def pexe digganteem ak loola ba Muusaa ah, mbiram du dox loolu la yàlla wax ne qulillaahu asrau makran yàlla pexe moo gën a gaaw su ngeen xamoon pexe yàlla gën a gaaw dafa yàkkamtiwul mbokk yi pexem na fan la dem muusam fan la dem armeem ba anam njëriñam kattanam ak puissance am anam ana alalam lépp yàlla tàggatal na ko mu dem ci Moussa mu protéger ko yar ko ci bu Moussa màgg Moussa wëlbatiku daaneel ko daal di koy remplacer waaye laataa loolu Moussa ñëw di woote woo yàlla di woote woo ne yàllaa ko yónni woo aw Firawna ci lu baax aw Firawna pexem yépp jeex kartam yépp jeex mu ne Moussa njabarkat la Moussa ne ko d'accord njabarkat la woo njabarkat yi kon say njabarkat yi nga am mu yónni ci dëkk yi dajale njabarkat yi ñu teew Moussa ne leen sànni ñu sànni Moussa sànni yatam yat bi war na seen i buum ak liñ jabaroon ñoom ñu ne xam ne lii du njabar parce que njabar ñun ñoo ko yor ku jàng ci dëkk bi ñoo la jàngal te Moussa mës sa nekk suñu élève kon Moussa du njabarkat Moussa ci dëkk bi la màggee te nekk bokkul suñu élève fa lay jàngee njabar ñoo ko fiy jàngale Moussa jàngul ñun Moussa du njabarkat li mu yor leneen la ñu ne ñun gëm nañ yàlla yi Moussa ak Haroun na foofu waroon naa gëm bu fekkoon ku baax la yemu fa mu ne innahu la kabirukum allazi allamakum sihr ah, kon ndeke Moussa mooy ponkal mi leen jàngal njabar yéen li ngeen yor njabar la Moussa moo leen jàngal njabar moom kon li mu yor moom it njabar la ndeke moom da leen a féete kaw rek jeexalul ci pexe de xam na ne li Moussa yor dëgg la waaye mu indiwaat pexe ne Moussa mooy ponkalu njabarkat bi leen jàngal njabar tegaat na beneen pexe pour waa banu Israël bañ a gëm ni Moussa ba tey yonantu la dafa njabar te pourtant mbir mi masala bu leer la de ak yonante ko dikkal mu woote ci mu leer woote woo ci njabar te njabarkatu firawna ci njabar lañ doon woote Moussa mësta woote njabar firawnaa ko njëkk a tuumaal njabar te xam na mu yor njabar parce que njabarkat da koy woote woo njabarkat mi dañ ko doon woote woo nëbbatiwuñ mais Moussa musul woote njabar pourtant firawna nee na ko njabarkat nga de loolu moom la borom bi daa ji def yàlla jeexal li nga xam ne mooy nguurug na ca woote Moussa ba mbokk yi suñ borom ci mbaaxam ci kéemtaanam ci xikmaam dafa def ne adduna bii lu bon ak lu baax moo fi nekk dëgg ak caaxaan ñoo fi nekk te li yàlla dogal kenn mënu ko delloo yàlla dafa jël ñenn ñit ñenn nit ñi nattoo leen ñeen dafa am nit ñoo xam ne ay façon nit ñooy seen nattu ñoo leen di teg coono ñoo leen di sonal ñoo leen di violenté ñoo leen di fexeel suba ngoon kii mooy sa nattu yow amoo benn nattu ci kaw suuf bu dul waa ji sa nattu yëpp moom la moo lay fexeel moo lay teg coono moo lay teg jafe-jafe sa nattu moom la ba nga xam ne man sama nattu yàlla kii la def sama nattu loolu mbokk yi dafay am kenn ku nekk xam na boo xoolee rek xam kenn ku nekk ci la yàlla teg nattu xam nga ko moo xam sa biir kër la moo xam koñ bi nga dëkk la am na koo xam ne bu lay gis tàggoon ak jàmm yooyu boo gisee xam ne waa ji amatul jàmm am na koo xam ne ngay liggéeyee moo xam école ba moo xam centre ba moo xam société moo xam entreprise ba moo xam marché ba am na koo xam ni ca gox ba ba réew mi mat nga koy yéeg ba àgg ca kaw kenn ku nekk am nga koo xam ni moom mooy sa nattu mbokk yi suñu borom defit jamono ju nekk am na ay nit ñoo xam dañuy jox ci kaw suuf di yàq comme ni mu amee ñuy baaxal noonu lay amee ñuy yàq chaque fois te ñuy yàq ñooy gën a yuuxu ñooy gën a coow ñooy gën a bari wax ñooy gën a mën a werante ah caaxaan bi lim leen di jaral daf sax daf lay sax jaaxal ci tasaare mbon ak xeex li nga xam ne mooy lu baax borom bi nee na wa kazalika jaalna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha dëkk boo dem def naa fa ay ponkalu kàccoor yoo xam ne ñooy kàccoor yu mag ya sooy wër doo laajte booy xool di leen gis xàmmee leen wax ju bon ci ñoom lay génne jëf ju bon ci ñoom lay génne pexe mu bon ci ñoom lay génnee comportement bon ñoom lay génnee doxalin bu bon ci ñoom lay génnee ñoo koy jiite ñoo nekk au devant de la scène ñoo koy wax ñoo koy incarné ñoo koy wane nga koy gis ak akaabira mujrimiha ponkal ñoo xam ne ñu kàccoor lañ lépp luy indi ak kàccoor ak ndëngte ak jubadi ak pexe yi bon ca réew ma ca société ba ca quartier ba ca gox ba ci ñoom lay bàyyeekoo. bul xaar ci ñoom lu baax duñ ko wax bul xaar ci ñoom lu lu lu baax duñ ko jëf bul xaar ci ñoom lu baax incarné wuñ ko bul xaar ci ñoom lu baax tasaare wuñ ko safaan bi ngay gis ci moom munoo gis ci ñoom leneen lu tax xamuñu lu baax xamuñu ko mënuñu koo dund dunduñu ko munuñu koo tasaare mënuñu ko wax parce que lu baax nekkul seen xol te xol li ci nekk mooy feeñ ci biti mooy feeñ làmmiñ bi mooy fenc ci cër yi ku nëbbul lu baax mënoo ko wax sa làmmiñ ku nëbbul lu baax mënoo koo jëf ci mu nekk loo xam ne lu feeñ la mbokk yi xoolal xisatu yonent yàlla Yuusuf moom la ñuy jeexale alayhi salaam Yuusuf waxoon nañ ko fi yàlla def ay pexe ko wër ay nit fexeel ko ay mbokkam ay fereeram ba sànni ko ci teen ñu jaay ko ba mu mujj ab buur jënd ko mu dem ca pale buur ba ndaw su am kàttan gis nga ku am kàttan ngoo xam ni warul tal ay pexe ku am doole muy jabaru buur warul am warul tal ay pexe ci lu baax la war a dox parce que yàlla jox na ko xéewal ànd ak muy fexe lan lay fexeel mooy nu mu détruire ëllëgu xale bi bu ko woo ci ay ak mooy yàgg nekk ci loolu Yuusuf bañ mu tuumaal ko ne Yuusuf daf koo dafa séq ak moom lu bon te jabar buur ku mu tuumaal loolu bu la yàlla moyul chance kaso nga jëm jàpp Yuusuf alayhi salaam yóbbu ko kaso yóbbu ko kaso lan ci tooñ ko ci ëpp ko doole ci noot ko ak ci pexe nit ku am kàttan yóbbu ko ci kaso su borom def Yuusuf alayhi salaam ca muñam ci mbaaxam pexe yàlla ñëw féetewaat pexe nit kaw mooy lan yàlla wane fa xam-xamam wane fa ak woote mu jàngal fa nit ñi tawxiid woo leen ci yàlla firi fa gént ba kaso bi xam ne Yuusuf day firi gént ñu génn ci kaso bi buur bi am lu mu gént ñu ne kañ nekkaloon ca kaso ba day firi gént mu leen kan la ñu ne ko Yuusuf mu ne wooy leen ko Yuusuf firi gént bi loolu doon sabab bu tax yàlla mu mu génn ca kaso ba buur bi daal di koy libéré ba wóolu ko ba buur bi jóge fi mu remplacé ko lu ko jiitu mu yor économie dëkk ba mbokkam ya ko sàndi woon xiif dab leen seen dëkk ñuy wut si koom ca dëkk ba Yuusuf nekk Yuusuf jiit nekk fa ñu ñëw di laajte di laajte ku yore ndimbali kan moo koy joxe ba agsi ci Yuusuf xàmme wuñ ko Yuusuf xàmmee leen may leen dimbal jàppaleen dimbali leen teg moom lu tax ñu mën a dellu siwaat ci ñoom mooy fexe ba téye rakkam di Benyamin ginnaaw bi mu dugalee nattukaay bi ci saakam te def ko ngir ay jubluwaay bañ dellu siwaat ba xam ne moom mooy Yuusuf ñu sukk ci kanamam di jooy di ci suuf si ci bërëngu naan Yuusuf baal bu la neexee rey ñu bu la neexee tëj ñu ñun ñoo la tooñoon waaye Yuusuf baal ñu Yusuf jóg ne leen jóg leen mu jóg Yusuf yedd leen daal di leen di bàyyi ñu daal di ñu daal di dellu mbokk yi loolu nga gis ne pexem yàlla toujours mooy féete kaw kon ñoom ana seen pexe ana seen i plan lañ defoon lépp delluwaat na ci Yusuf Yusuf gën ca yëkkati loolu borom bi di wax ni wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli li nga xam ne mooy pexe bu bon du dellu lu dul ci ki nga xam ne moo koy pexe saa booy pexe lu bon wallahi yaa ciy dem li wolof di wax ne kuy gas kàmm yaa ci njëkk a mbokk yi aajo woo nañ defaraat suñuy xol ci coxor ci iñaan ci bañante baaxul ci ab société dafay yàq day freiner développement waaye day freiner diine doomu aadama yi aajo woo nañ defaraat suñu jikko sori réy réylu sori ngand ngandalu sori tooñ sori jaay doole aajo woo nañ defaraat suñu diggante ba sori lépp loo xam ne ay pexe la ay complot la ay euh, waxi suuf ak jëfi suuf yoo xam ne la koy lal mooy ay intérêt crypto personnel intérêt kenn wala intérêt benn group wala intérêt benn famille wala intérêt benn xeet wala intérêt benn gox wala benn réew déedéet ci kaw intérêt réew wala ci kaw intérêt société intérêt général mooy jiitu intérêt nit mooy jiitu intérêt famille mooy jiitu intérêt kuréel mooy jiitu intérêt ab dëkk wala ab gox ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mbokk yi kii pexe it na yëg ne moom dana sonal nit ñi waaye dina sonn àdduna dana sonn àllaaxira te yàlla pexe bu ñëwee ci kiy pexe pexe yàlla moomu xejul ci waa ji ci àdduna bay xej ci moom ci li nga xam ni moom mooy allaaxira allahuma ahdinaa li axsani axlaaq laa yahdi li axsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha laa yasrif anna sayyi'aha illa ant allahuma waffiqnaa li maa yurdika anna wa janibnaa maa yusqituka alayna allahuma waffiqnaa bi xusni l iqbaali alayk wal isgaa ilayk warzuqnaa wa waffiqnaa li taawuni fi taatik wal mubaadarati ila xidmatik wa xusni al aadaabi fi muamalatik wa taslimu li amrik wa rida bi qadaik wa sabr ala balaik wa shukru li niamik ya rab alalamin إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله